alquranul karim moo ci rot bu ñu demee ci suratul xaj ji ay ñaar fukk ak juróom-ñett dañuy fekk suñu borom tabaraka wa taala di ko fa leeral li yashhadu manafi'a lahum wa yadkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am kon bahimatul an'am mooy juri kër yooyu la nuy ah muy gàtt ak nag ak gileem gàtt mooy xar ak bëy ak nag ak gileem yooyu ñooy bahimatil anham bu dee xar ñaata at la war a am doog matum tabaski faaw matum at gën ngaa néew kon boo amoonum xar mu judd yow mu arafa bu tabaski déwén delsee dana matum tabaski donte benn bis tegewut ci at ma itam bu dee bay dana mat at ak weer lu mu néew at ma dana tegal donte benn weer la bu dee nag dana am ñetti at bu dee gileem dana am juróomi at dooga matum tabaski léegi nag gënante nañu itam nag xar moo gën béy béy a gën nag nag a gën giléem maanaam moom ci ci ci niñ ko taamoo niñ ko tegalee xarit xar mu góor mu ñu tàpp la gën xar mu góor mu ñu tàpp tege ci xar mu jigéen topp ci nga doog a dem ci béy wu góor wuñ tàppul doog caa teg bayu góor waxuñu tàpp doog caa teg bayu jigéen noonu la ñu taf taftaloo ba niñ ci tegee nag doog caa teg giléem maanaam noonu lañ ko gën a taamoo ah bu ko defee tamit sañees naa laaj kon ne boobaa waaw juri kër yooyu nga xam ne moom lañuy moom lañ taamu ci tabaski nan lañu war a mel seen état nu mu war la dañoo war a mucc ayib kon dañoo war a mucc ayib ndax tabaski eh, ak jaamu yàlla la te suñ borom ko koy jox danga koy jox lu baax loo xam ne lu mucc ayib la am na saxaab yi bu ñu wax albarra ibni asib eh, moom moo nettali ne laaj nañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ana lu ñuy wattandiku ci am tabaski yonent bi sallallahu alayhi ne ko xanaa ñeent lañ ciy wattandiku ñu ne ko ñeent yam mu ne gàtt buy soox maanaam soox bu métti boo xam ne ni bu àndee ki moroomam ñu raw ko des koy wàttandiku li ñuy tabaski itam mu pat pat bu métti ba nga xam ne du gis dañ koy wattandiku dañuy wattandiku itam mu tawat maanaam feebar feebar metti ba nga xam ne nii fa mu tëdd buñ ko yëkkatiwul du fa jóg dañ koy wattandiku dañuy wattandiku itam gàtt bu loof boo xam ne ni dafa ràgg ba fa mu tëdd moom du fa jóg boo ko rendi woon it daanaka du am graisse dara itam sax mën naa bari mën naa bañ a bari ay yàqi kese lay doon kon loolu dañ koy wattandiku kon gàtt bu tawat walla mu loof rey mu dee reyut mu dee la te suñu borom kenn du ko jox rayu mu dee rayu mu dee dañ koy jox lu mucc ayib lu baax xadis bi mooy an il barra ibni azib radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam suila maza yuttaqa min addoxaya fa ashara bi yadihi wa qaal arbaa wa kaana albarra yushiru bi yadihi wa yaqul yadi aqsaru min yadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alarjaa albayinu walhuha walawraa albayinu awaruha walmaridatu albayinu maraduha walajfaa allati laa tunqi rawaahu Maalik fi al-Muwatta kon yooyu mooy yi nga xam ne nii moom lañuy ñuy waaye ci kaw tamit mu muccee eh, ayib incha allah yi nga xam ne ne ay détails la laaj yi ak tont yi dana ko leeral buñ laajee borom xam-xam yi danañ leeral dëgg dëgg nag détails yi nga xam ne wàcc waaye lii daal mooy li nga xam ne ni res na ko ci tënkee ci war a tabaskee mooy yan mooy juri kër bahimatul anham beneen ba ca wax nañ niñ seen ngëneel maanaam bañ ci gën a taamu ak ba ca topp ak ba ca toppaat ak bu ci nekk ñaata diire la war a am doog matum tabaski ñaata at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 auzu billahi min asseytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim